Thank you. suivre émission bi ndax xam ngeen ni période bi ñu toll période tailleur yi la ak ñii nga xamante ne ñoo di salon yi ba tax na loolu nag ñu daal di doxantu si ñëw ba fii nga xam ne nii moo di si Alioune Dione ñu ñu ñëw nag ñu war ñoo wan modèle yi nga xamante ne nii moom la def ak li muy préparé ci tabaski bi kon nag baaxee rek ñu dem internautes yi comme ni ma leen ko waxee rek suñu émission bi di recherche célébrité bayiwul kenn euh, salon yi tamit nañu xaar xamni ñogi ñew tay nak Aline Dion mom lañu wara dalal tay ci suñu émission bi di recherche célébrité ñogi fi nak tay ci ndawen Couture fi ci Aline Dion machallah allah nee la moom namul dara ba paré li def daf ko mënta da ci yag machallah xalé bu fi jongama ba takku rek mom mo la mom mo la génné fofu ba taxna nak ñogi fi ci ndawen Couture Aline Dion nuyu nañu la waaw soxna si maa lay maa lay fay bu baax baax di la jox sa waay di la jox di la bëgg trop si tey émission bi nga ñëw tey defal tey jii di kontaan bu baax a baax sa teewaay di remercier seen waa télé bu baax. jërëjëf euh, Alioune Ndione yow mii nii euh, lan ngay préparé ci li nga xamante nii moo di tabaski bii ñu war a dëmmal. waaw soxna comme ni ma la ko waxee rek waaw kon tabaski ñëw na jub nañ tabaski ñoo ngi waaj defal xale jigéen lépp lu ñu bëgg rek ay xeetu tay yu rafet daal waaw mu ngi nañ côté bu ne daal foo ñu fëgg dañu wuy si la lan moo tax ndion Dione taamu ñaw euh, dafa nek lo xamne dang ko yag bëgg wala lo xamantene ni dang ko doon wala lan pourquoi nga taamu ñaw waaw lo ba mos laay naa sawar ndax dama ko bëgg nak dafa nek sama destin dal deug yalla dama ko yag bëgg moo tax yàlla dimbali ma ci ba ba ma si gaaw na ci réussir dal def limay def ber sama atelier di liggé sama liggé waaw depuis euh, ñaata at nga commencé euh, affaire tailleur waaw daanaka nak ba ma bàyyeeg jang ba tay ji ma ngi ci affaire métier bi waaw yag na nak diré na boobu tey nag dew ma dikku ma maa ngi si métier bi toog rek jàpp sama ñaambur di liggéey di dóor mu daanu. Euh, Aliou Ndione ñaata atelier la yor. waaw Aliou Ndione nag benn atelier la yor waaw daanaka benn atelier la yor boobu tey atelier bi daanaka boo dee seet société la daal ndax ku nekk nga fi bëgg a jaar di jàll di fi wut si xam-xam. xam naa ni nag am nga possibilité pour am yeneen euh, atelier mais lan moo tax nga taamu Pikine rek atelier bi lu tax nga taamu Pikine kese demoo ubbi feneen. waaw Pikine moom boo gisee ma taamu ko filaa laa juddoo fi laa yaroo te ñun ay gone yi Pikine nañ mënuñoo dem fenn bàyyi seen réew moo tax bala ñuy dem fenn beneen dëkk di wàll yaa ñu dëkk ñu dëkk tëgg suñu dëkk ba pare beneen jour ñu dem tëgg wàll feneen waaw. macha allah sa diggante ak sa client yi Alioune Ndione wax ma lan mooy sa secret ndaxte yow mii Alioune Ndione nag dangaa poñe say say say nawle ah nit ñi say nawle lañ dégg naa deux mois mi ngi nii yaa ngi fanaan Alioune Ndione loolu looñ ci mën a wax. waaw loolu nag boo ko gisee nag xale jigéen yaa ñu taamu rek xam nga fii moom Sénégal moom daanaka moom bu ñu gisee lu baax moom dañ siy dem ba jeex bu la yàlla boolee ay nit nag moom nga leen defal loo xam ne seet na seen xol duñ la mës a bàyyi colère colère gi sax moo ëpp fuuf ka ka ñaw bi man man nit ki ma téyee ko sax moom a gën a fuuf ñaw bi moo tax benn instant bi ñoom ñu taamu ma si daal ba lépp fu ñu xiiree rek dañuy daal di ñëw ñu defal leen lépp lu ñu bëgg rek ñu si kontaan. dëggal loolu euh, yow euh, da ngay ñëw ay yëre góor aussi wala yëre jigéen rek ngay ngay taamu di ñëw. non fii ne moom lépp la ñuy ñëw moom day ñëw prêt-à-porter di ñëwal cérémonie di ñëw lépp daal góor. ak jigéen loo bëgg rek boo ñëwee ñu defal la hmm. euh, léegi fii nii euh, lan nga ñu mën a présenter nag Alioune Dione wax dëgg yàlla ci li nga xamante ne nii moo di tabaski bi nag. waaw tabaski bi nag moom ren nag moom daanaka boo dee seet jasneer moo ëpp qualité moo ëpp dox daal ren moom li bëri moom tabaski bi moom jasneer laa liggéeyee waaw ah, daanaka sama modèle yu bëri daal si si si jasneer laa ko taamoo daal. jasneer ak borodé marigé moom laa jël di ko travailler xale jigéen waaw. léegi euh, euh, ñaata temps lay durer ñaw boobu nga xamante ne da koy boo bëggee ñaw bu baax qualité ay ñaata temps lay durer. waaw lu ñu naan nit ki boo yàggee si teen rek baax fekk la am na yoo xam ne boo ko daggee taf taf même pas 15 minutes mën ngaa def nga def tegee ko à côté ndax liggéey boo ko joxee gëdd rek mu ñëw fekk si la liggéey boo mënut doon nag boo si taxawee fulaak fayda rek doo si sax yàgg da nga daal di nekkaat si leneen. Euh, ñii ma fekk fii ñuy say emprunté yàgg nañu ak yow. waaw bien sûr ñi moom daanaka nekkuñu samay apprenti samay rakk nañu peut-être ñu nekk famille en temps waaw laanaka moom léegi moom nekk nekk duñu sax ay apprenti yooyu ay ay rakk fi dox fi moom képp ku fi dugg moom maga rakk fi dox waaye ay apprenti yi dox doxatu fi daal wax dëgg yàlla ndax bu leen neexoon ñu wax loo xam ne sax mooy loolu waaye dañoo ñëw maase ak man nangul ma trop moo tax benn instant bi loolu rek moo fi dox mhm. lu amul sa ak sa euh, waaw lu amul concurrence baaxul concurrence dalay tax nga am jom benn instant bi day day tax tamit nga xam fi ngay teg sa tànk waaw ndax doomu aadama buy judd buy dund di dox bu ne rek am na ñu bëgg am na ñu bañ il faut nga def la tout ba nga xam ne rek li ngay concurrence fexe ba bu ñu la mës a gis na la acam na nga def lépp loo mën si àdduna rek ba sa liggéey jaar yoon man noonu daal laa laa laa gisee yëfi concurrence bi commencé euh, ñaw ak léegi lan nga am lu la métti ci la nga xamante ne nii moo di ci tailleur bi lan moo la ci gën a métti. waaw tailleur na boo dee seen moom dëgg yàlla moom neex na neexul des fois nga am ñaw mu tardé borom wax la si loo xam ne day jéggi dayoo doo ko mën a wax leen ndax si yow la yaa ko faussé te xam nga jàng pexem yàlla ak dogalam des fois nga nga dund si yoo xam ne mooy loolu daal wala nga jaawale it si jàmbur mënu see ñàkk daal ndax nit nit rek la. waaw euh, des fois nga am loo xam ne da bett déception yu bëri si nit da ngay sëgg rek bàyyi mu jàll xam ne yaa yaa apteke waa nekk ko c'est normal lii dal la moo tax benn instant bi bu la dalee sax da ngay sant yàlla xam ne lu war a am la daal. Mhm. léegi à part lan moo la ci neex. waa à part nag moom ba ma bokkee Sira Vision moom défilé Collé Sow Ardo si laa gën a centré man mii su ma yóbboo gën a góorgóorlu ndax nit boo dee def benn benn ba nit ku mag ñëw jël la boole la ay mbiram. santal yàlla bu baax a baax ndax ku commencé talent banlieue dafa yàgg ba ñu commencé foofu ba tey bàyyiwuñu ku ñu woo défilé ñu dem dañuy défilé fu ne ba ba moom muñu gis ñu bëgg ñu moo tax jour boobu daf ma marqué carrément ndax da fekk ma commencé défilé yu ndaw ndawaane ba moom mu gis sama qualité woo ma ne ma kaay bokk sama séravison di ko nuyuwaale à passage muy Collé sa Addo mama Collé ku baax ku ñu boole si boppam wax dëgg yàlla ku yàgg si aar bi nag war ñu yoon nag moo tax benn instant bi du mën a ñàkk daal il faut nga bëgg tuuti benn instant bi si loolu. <laughs> Ndawen Couture lan moo ko waral pourquoi tur boobu. waaw Ndawen Couture nag boo gisee ma tuddee ko sama tur atelier bi man daanaka dañ ma tudd tuddee sama xaritu papa mu tudd Aliou Ndione ma koy ñaanal yàlla fa mu tëdd yàlla na ko gënal fii mu jógee jiitu na waaye sama papa moo sant Ndaw. man ñu bëri dañ yaakaar dañ Njoon laa sant fekk ndaw laa ndaw laa ndaw ndaw laa sant. xam nga xaw ma ko woon man Njoon rek laay wax <laughs> la loolu moom bañu moko na ben instant waye ndawen bi sama papa sama mag papa bi ma jangal métier bi ma bi ma santan métier mom dafa sante ndaw ma ma sante ndaw mu jangal métier ba berma. Yon la ma delo ko ndukal jël santam tuddé ko sama atelier. macha allah kon lolu moy wane ni digënté bobu dara ñaaw ci. ah muk nenañ kula jangal métier mëno ko fay dal motax mom moom mënu ma ko fay fek yóbbu ko ba duggo ko ci kër. wax deug yalla ngay tamit euh, Aline ndion nan nga dëkke ak cité wa cité bi nan nga nekké ak ñom fi wa waa mom, bi moom ni ma dëkkee ak mom jamm salam rek ak kóllëre ñi wara mat yaay ma def leen yaay rek ñi wara mat rak ma def leen rak ñi wara nek mag ma def leen mag lool boko ko sa aduna amana do doo dal mo da ben instant bi day melni ni sax ma absenté sax da leen di ñom ñoom toujours ñu ngi bëgg heure bu xey gis ma ma taxaw seen kanam loolu dafa sant yalla dal ba pare ngay liggé sa koñ fert la wa koñ bi ñepp wuy si la ay jambour yalla ñew wuy wuy si la il faut nga def le tout ba gorgolu ba dara do so gis dara lo xamna day ñaaw waaw ñu gis ni aussi alin Ndione mën nga koo jox ci si boo xamante ne mètre 300 la sax mu génnee ci ay affaire yu doy waar yoo xamante ne nii euh, dafay doy waar daal boo ko solee dañuy yaakaar ni sax 100000 nga ci frais loolu loolu lan la noonu ak garniture aussi ku xam garniture nga macha allah comme ni ma koy expliquer parce que loolu aussi c'est très important nga xam garniture voilà. waaw loolu moom ba mu laajee dinaa sawar ndax man boo dee seetlu dëgg-dëgg cérémonie laa gën a mënee yére xew laa gën sawar ko sax ay événement tabaski korité man xew dama ci dem ba jeex bo amone cinquante mille naa la defal njëgu deux cent mille. déggal loolu. pour uniquement de sa xew neex nga am réussir rek ak ndam. lolu jewé nañu lako ko euh, nee nañu Alioune Dione mën la ñawal sax ba mu paré euh, mu jox lako wala li nga koy jox sax du bari macha allah man mi def nga ko ak man. ah lolu yow yow sama sama jigé nga seete boo desee ñi ngi liggé ñu bari say sœur nañ mhm. waaw da nga leen jappé comme sa rakk wala comme sa mak mo da ben instant bi alal gi sa doo ko toppatoo yow téel nit ki rek ak kóllëre gi rek man moom moom moom a gën a fuuf leneen li may am si àdduna. macha allah gis ngeen comme ni ma ko waxee fii ma fële tey moom ma fi génne macha allah ci bula gis nga nii na mu ma dara maa ngi tàqee nu ne maa ngi mel ni Ema Malène fi mu nekk nii lii moom ku ci bëgg da ngay daal rek daal di doxantu si ba fii ci Ndaween Couture ah du doonu léegi nag alin Dione sa kàddu bu mujj lan lay doon. waaw sama kàddu gu mujj mooy di leen remercier bu baax a baax a baax ci teewaay bi ngeen bi ngeen bi ngeen fi def di remercier sama employé yi nga xam ne ñoom laa nekkal fii ñoo may jàppale si liggéey bi ba benn ñëw du taar aw ma seen fay di remercier tamit clients yi nga xam ne comprendre nañ ma ci tardement yeeg ak bu ñu indee seen ñëw li ñuy daj ak yooyu coono yeeg dem ak dikk bi di leen ñaanal yàlla yàlla may ñu bon tabaski bu neex a neex a neex ñu fekk ay at yu bare bare bare bare macha allah euh, gis nga loolu la Alioune Ndione wax ñu fekkee tabaski bi si jàmm ak salaam kenn du wax sañse macha allah te boole woo ci bopp kenn du wax bopp aussi te boole woo ci kanam ba tax na gis ngeen greffage bu rafet bi euh, nga xam ne moom laa teg moo ma tax a yanji nii euh, kii di sama tata Fatou Kiné moo fa jaar make bi aussi gis ngeen ma macha allah maa ngi mel ni Emma Maline moom moo ma génnee fii macha allah soriwul Alioune Ndione dara moo ngi fii tout près ci bi sama tata Fatou Kiné numéro am ko soxla rek mi ngi noonu ci suuf rek après ngeen jël ko rek daat koy xanaa rek dañ lay bàyyi nga daal di joxe sa adresse ak sa numéro pour ñi nga xam ne soxla nañu la. waaw soxna adresse moom daanaka moom yomb na boo ñëwee ba Pikine Icotaf 3 rek en face syndicat bi rek boo ñëwee boo ñu mën la ko wala boo wootee sax naa la jox sama numéro léegi boo leen wootee ñu jël leen numéro bi la 608 47 54 boo ñëwee ba Pikine en face Auchan bi boo wootee rek ñu jël si la la lu baax lu rafet. Alioune Ndione ñaw boo ko déggee ñu koy wax finition moo tax. da ngay seet lii nga def nii lan la Alioune Ndione lan la luy sa problème. waaw Sonia comme ni ma la ko waxtee rek ma ma ki ma bantuwaat la ko rek tey baas tey baas dëgg daal moom valant moo ko yor te lii finition bi dafa laaj nga def si finition dama jël sama garniture bu baax rek. waaw bu seer ma jënd ko découpé ko orné ko sama taybaas daal pour pour ma mën a am taybaas bu jaar yoon. kon xam nga li ma la doon wax sànq dafay daal di ñëwaat ñëw dëgg balaa ngaa mën a ñëw da ngaa xam garniture. ah bien sûr man moo dëgg yàlla ganti moom ma lu a ñaw bu rafet rek jaral na ma lu ne sa àdduna moom a gënal sax ganti daa ne. da ngay seetlu gars yi ñu ne benn nen la dañ koo war a rek mayonnaise tey yëpp daal di capp ku ne gis ci sa bopp waaye da ngaa waaw gis nga lu waral loolu xanaa wóolu wóolu sama loxo rek nekk ay xale yu mën yu moo déggal nag su ma leen santee dara ñu defal ma ko ma ñëw yeggale def def samay finition waaw di ñaan yàlla yàlla lafa ñu cat daal bàyyi ñu ñu yeggale ak seen i sogo macha allah euh, da gis nga des du ñaax nga simple ko des nga am jasneer boo xam ne mu def day rafet daal ba doo si bëgg a def dara lu dul travail ak loxo nga koy def des fois koy ñëw sa banaa yi toog nga plissé ko loxo yi nga def ko sa golf bu am maanaa rek bu ko defee ñoo bi day ko xale sa tay baas bu baax daal di fant ci ginnaaw daal nga def ko zipp droite. waaw si la bokk des fois du ñàkk tudd am ñu bëgg fant pour bu ñuy dox pour mën a génn wala seen talon daal bëgg des fois boo soloo tuuti sa daal la mën a allah mu ñëw boole koog moom cheveux bu orange bi rek mu daal di fël fu nooy nii. waaw man na damaa tàmm fësal na damaa bëgg su ma lay ñawal moom sa cheveux day niroog sa kilo jasneer. waaw maa la wax lii. ah macha allah <laughs> Alioune Dione sa diggante ak Ben Diagne. waaw mbir na sama yaay la sama maay sama sama dama ko yàgg a ñawal lu mu sol rek daanaka bu ko keneen ñawalee sax danaan dara safuma. dangay seet loolu. kóolere gu yàgg rek nag moo ko waral nag. parfois damay gis moom mu tàq ba yàq. yee moom mu tàq yàq moom dafa am mom mom. saay saay saay saay sañ sa la nag. macha allah. génne waat nii grand boobu waa Alioune Dione lii lan la tamit nag Alioune Dione lii lan la. waaw des fois day laaj nag nga génn tuuti may tuuti mairie seen wàll xam nga bu njëkk ba mairie doon sol sol grand waaye léegi xale yi nang moom nangu nañ ko si mairie léegi xale yaa ngi ñëw grand boobu yu fasan yu yam si ñoom. nga xam ne da ngay sànni ko def lu la saf te dafa habillé. da ngaa bëgg tabaski bi ñëpp seen bopp. waaw man moom sama mère yeeg biir yeeg dëgg yàlla bëgg naa ñëpp gis seen bopp ñëpp sentir seen bopp daal ku ñëw rek am li nga bëgg kontaan ba bëgg a dee. macha allah moo tax ñu génn si ni xeetu modèle. moom waaw damaa jënd sama ñaari couleur wëñ rek daami ne ko ndax des fois du ñàkk nga def 217. wëñ la dama kaa def sama 217 rek génn si lu garaaw rek waaw couleur dafa sax dafa dafa. nag dafa osé des fois da ngay ñeme couleur. vert da ngay jël da ngay jël vert nga def si orange dugal si bleu turquoise boo ko defee dangay am lu bari waaw. ah Aliou naa la xamal dara de commencé jamono dama waxati ko bàyyi na la xel. Badou waa gis nga de waaw mënut a mënut a ñàkk nag mënut a ñàkk ndax jamano jee ko laaj fi mu toll nii. macha allah jamono ji moo laaj moo kii moo laaj loolu. moo tax benn instant bi il faut ñu wane li ñu mënee daal. ba xam nga ni bii bu may dem dama ko yóbbaale. yaay bañ la ko booy dem yóbbaale ko. ma daal ci laqal monsieur yàpp ah. yàpp laq ko pare rek ñëw tegal ko ko. du ma namm dara de. moom kay doon na mu la bëri moom. macha allah. <laughs> lii la ñuy wax métier dafay bëtt Alioune yoon nga génn fii ci rob waa gis nga tey moom damaa ñëw defal la rob jasneer xam nga dama nit ñi dañ dañ defaa ñu préféré tey baas waaye des fois day laaj des fois nga génn tuuti benn ku istalu rob rek. jas ne nga dag ko robe dafay rafet daal def ko droit. def sa manche yu baax. waaw manche nag jekku naa ko si robe nag. waaw ndax manche dëgg balaa rafet jot daal am tuuti salen salen. Aliou Ndiol ñaata at nga def ci tailleur. <laughs> waaw at bi moom daal boo dee seet moom jaru konte nañ si nañoo ñun daal dañoo bàyyi jàng bi rek jublu si léegi liggéey bi daal moo tax yàlla wërsëgal ñu ñu teel see def la ñuy def nekkaat si beneen atom ngay xanaa ñu jéem a góorgóorlu ko ne a sànni a bokkal la daanaka ñoo ngi jaamu yàlla bu a baax si moom si métier bi ñoo ngi nag suñu jeexantalu émission xanaa kay da ngay joxe waat numéro bi Alioune Dione waaw wax dëgg yàlla jeex su ma sañoon na du jeex nag waaye <laughs> dañ koy teg ba beneen yoon waaye numéro bi moom ñoo ngi koy def si suufu écran bi rek ma bantuwaat ko ñu def 77 608 47 54 waaw ku ñëw ba arrêt Sandikar wala té ana atelier Aline Ndaw rek ñu won la ko wala Aline Dior. en face au bi merci beaucoup euh, c'était votre émission recherche célébrité Nous ci donnons ànd ak Alioune Dione dama rendez-vous à la semaine prochaine avec un autre invité Inch'Allah. bye bye.